asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk mi yaa ngi may laaj ma waxal la ci mbirum góor jigéen wala bok ci mbirum genre wala homosexualité wala ci mbirum LGBT mel na ne nag coow loo xam ne lëmb na réew mi jamono ji rawatina lëmb na àdduna bi ci njëlbeen gi nag na nga xam ne mbirum góor jigéen. Euh, di ko jëfandikoo mbir la moo xam ne bàkkaar la ndax dafa mel ne borom bi subhaanahu wa taala nim leen bugale woon ci alxuraan ci nit ña ko doon def ca xawma lootin mbugal moomu mel na ne mosoo si gis ndax mbugal yu baree baree bari la boole teg leen ko si teg ko seen kaw ndax ñaaw gi ñaaw ak bon gim bon ak yàq gim mën a yàq moo tax mbirum góor jigéen borom bi subhaanahu wa taala bim koy bim leen di teg mbugal gi ay ñeent mbugal la boole benn yëkkati seeni seeni kër seeni dëkkuwaay ba ca kaw wëlbati wëlbati ko ba ca kaw asamaan si wëlbati ko ba ba noppi boole koog joor leen ay xeer yoo xam ne ca sawara la ba noppi far seeni bët ba duñ gis bugal yooyu yëpp mu boole ko teg leen ko kon xam nga ne euh, jëf la joo xam ne jëf ju ñaaw ñaaw la mbiram góor jigéen nag mbir mu yàgg la moo xam ne euh, xamees na ko ca diir bu yàgg muy mbonteef loo xam ne daanaka xeet yëpp dund nañ ko moo xam Afrique la moo xam Europe la waaye ci jamono yi mujj mujj nag wala ci at yi mujj wala ci siècle bi mujj nag ci la am lu tàmbulee feeñ nag loo xam ne mooy lu ñaawa ñaaw bari ci dëkk yoo xam ne rawatina ci dëkk Europe yi ak Occidentaux yi ñu commencé di ko daganal bay daganal diggante góor ak góor wala jigéen ak jigéen di sey ñu koy tuddee jaar moo tax euh, xissatu Luut bokk na ci xisa yi nga xam ne moom na borom bi subhaanahu wa taala gën a tudd ci alxuraan ndax xam nga ne yonent yàlla luut mbokkam yonent yàlla ibrahim alayhim asalaam la te borom bi tudd na ko ci alxuraan ci barab yu wuute wuute di nettali mbon gim daan gim daan def aw nitam ndax alxuraan jàng nga ko ba muy wax wa luutan aataynaahu xukman wa cilman wa najaynaahu min alqaryati allati kaanat tacmalu alxabaa'is innahum kaanu qawma sawin faasiqin kon loolu lu leer la ba tey wax na ci yeneen barab ne is qaala li qawmihi ataatuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamin innakum la taatuuna alrijaala shahwatan min duuni annisa balantum qawman musrifuun comme muy caay-caay goo xam ne mel na ne ci àdduna bi mbon googu ñoom ñoo ko fi njëkkoon a def te mbon gi kat ba léegi day woy képp koo xam ne def nga mbon googu rek ñoom seenu mbogal day gën a yokk day gën a yokk te mooy dikke góor ak góor muy lu ñaaw te bon bokkoon na sax ñoom seenu mbon li ñuy tudd xat ut tariq daa ak kar di nangu seen alal bu dee jigéen euh, nangu seen alal nangu seen yëf loolu it bokkoon nañ ci seenu mbon ngoo xam ne daanañ ko def moom yooyu moo tax borom bi subhaanahu wa taala bim leen waaree xupp leen ñu dëgër bopp mbugal mu taratar la leen teg te mooy mu digal malayka yi mooy mbugal mi ma fi wax sànq ñu jël seen kër yi yeegal ko ba ci kaw wàcce ko ci ci suuf ba noppi boole ñu mëdd leen booleeg joor leen ay xeer yoo xam ne ca sawara lañ ko lañ ko jëlee te xeer wu nekk kat dañ caa bind tur ko nga xam ne moom la war a dal nga xam ne xeer wa bo dalee ci bopp bi day bënn ba ca ron suufam kon jëf yi Eh, nitug Loot amut lu ko mën a taaral amut layal ci ak mbon te mooy la alquran wax ne fa jaalna aaliyaha saafilaha wa amtarna alayhim xijaaratan min sijjiin kon li ñuy wax ne jëf ju rëy bay gu moo cay topp waaye mbon gu rëy nag mbugal moo mësta gis moo cay topp kon xam nga ne yàlla amul moroom te li ci yéeme fi ne boo demee ba fañ wax ne fa la luut waa nitam ya ca muy barab bi ñuy wax Sadum te te ñu wax ne mooy diggante Palestine ak Ordon boo fa demee ci kéemtaanu borom bi subhaanahu wa ba léegi da ngay gis jeexital mugol ma tar mugol ma tar ma fa borom bi subhaanahu wa taala wàcce woon ndax waxaar nañ ne barab boobu mooy barab bi gën a suufee ci àdduna bi mooy mantaqat Sadum tam nekk diggante Palestine ak Jordanie mbugal moomu nag moom la woy ba ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën koo taral ndax bu dee ci attab lislaam moom eh, li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci ay xadis yu baree bari nga xam ne kenn amu ci woote mooy ray moom la ibnu abbas nettali ci xadis man wajatutumuhu yaamalu amala qawma luutin faqtulu alfaaila walmafuul bihi képp ku ngeen fekk muy jëf-jëf yi xawmu luut da ngeen rey ka def ak kañ koy def alfaaila mooy sujet wal mafuul bi ak complément d'objet direct maanaam ka nga xam ne moom moo fari jigéen ak ka nga xam ne moo fari góor ci lislaam ñaar ñëpp lañuy boole rey ndax ak bon la goo xam ne ñoom ñaar ko bokk def te loolu amul woote ci ci ci mboolem saxaaba yi amul woote ci mboolem giir yi nga xam ne giir yi nga xam ne ñoo làmboo ci diine lislaam xañ na nag woote na ci am nañ ak woote ci euh, yoon ñi ñu leen wala raye euh, ndax ku mel ne Seydina Ali radiyallahu anhu moom dañ na nañ leen lakk bañ faatu ci sawara te mel na loolu la abu bakarin radiallahu anhu jafe woon ba ko xaalid ibnu walid bindee ba mu demee ci foo xam ne gis nañ fa koo xam ne moom dafa reconnaître ne ak ngóor jigéen da koy def bi mu bindee euh, abu ko ci laaj xalaatam euh, bi ko abu bakarin laajee euh, seydna ali dane ko nañ ko lakk te loola lañ jëfe woon ca kookee da nga xam ne nag bu ci lislaam atte ci lislaam dafa am yoon niñ koy defee ki ñuy wax xaadi ci boppam juge bi nga xam ne mooy juge bu lislaam moom mooy atte waaye yow ci si jëmmi bopp mënoo atteel sa bopp mënoo jëfandikoo sa bopp lool yi nga xam ne moom la lislaam tëral xañ na nag eh, yàlla dogal na ci dëkk bi ñu nekk nga xam ne ay jullit lañ waaye attewuñu atteb lislaam mbooloo mi bañ nañ ko bañ ko taratar ba léeg-léeg ñu fajal ko seen bopp xaj na loolu bokk na ci li tax sax mu gën a jàjji mbirum góor jigéen ni ko mbooloo mi bañe waaye taxut ci yoon yi ñuy jëfandikoo taral gi nga xam ne taral nañ ko taral googu ñu egg ca ba nga xam ne atte ci lislaam day am yoo xam ne yu baree bare lislaam da ko suuraale ndax lislaam euh, bëgguta tooñ kenn te tamit borom bi subhaanahu wa taala ni muy ni muy jëfandikoo ay atem da ngay xam ne euh, du du du ko tëb rek nekk ngóor jigéen wala du ko la neex rek nga tuumaal ko ak ngóor jigéen loolu it fii na lislaam am na lum la ciy teg ko tuumaal góor jigéen te amoo ci preuve yi nga xam ne moom la lislaam tëral ne mooy preuve ndax atteb góor jigéen duñ ko def dafa am ay sart pour ñu mën koo ne diw góor jigéen la <clears throat> sart yi bokk na ci gone gone duñ ko bu dee ci ak gone koo xam ne majeur gut kooku duñ ko ray des na ko nag yar yar gu méttee métti goo xam ne dana ko jàjj ba loole xale xelam dootu ci bu dee koo xam na ak wére di da koo dal kookit deesu ko rayyi ki nga ki nga xam ne it dañ koo forcer kooku it deesu ko ray ndax defu ko ci coobare boppam kon li tax ñu mën a atte loolu yi lislaam wax benn ko ko def day nekk mu kàllaf mu kàllaf ci lislaam nag mooy bu mu amee fukki at ak juróom benn wala boog bu gisee man yu muy ku góor ki muy ku jigéen ki wala boog bu amee kaw kaw kanam wala karawu naq ba noppi it kañ koy teg ne moom góor jigéen la benn moom mooy wax ne man góor jigéen la dama koy def su boobaa att bi day ci kawam wa illaa bokk yent seede yoo xam ne ñëpp dañ koy gisandoo comme ni ñuy atte ku njaaloo te loolu yaakaar naa yombut moo tax tuumaal nit ak ngóor jigéen moom bu doon ci islaam soo indiwut preuve daanan la caw xaddul xasfu te mooy juróom-ñetti fukki yar ba noppi it daanan am leneen lu ñuy teg ci sa kaw bu bu ëllëgee doo wër di tuumaal nit ñi ak góor jigéen ak jigéen nag fii ci ñun li ñu gën a xam mooy koo xam ne xaj na day dox doxinu ak ngóor jigéen ñu ko koy xoole wala ñu ko koy waxal wala sax koo xam ne dafa bëgg di col comme ni jigéen yi di solo fekk boobu xañ na loolu ak caay-caay la waaye eggul ci caay-caayuk jëfandikoo ak ngóor jigéen loolu nañ ci bàyyi sa xel bu baax a baax te loolu ñi koy waral nag bari na benn mën naa nekk ci yar bi benn it mën naa nekk ba muy doon xale xañ na dafa yàgg jaxasoog jigéen ñi mu bëgg seenu colu ak seenu doxin moo tax yooyu yëpp jar na ci bàyyi xel benn nit mën naa nekk ak wéridi ak wéridi ñuy tudde génétique loolu am na tubaab yoo xam ne sax génn nañ ko ci ay organes yoo xam ne xañ na ci bindub doomu aadama lay doon wala sax loo xam ne sax li ñu mel ne jinne wala rab da ci xiirtal nit ci ak ngóor jigéen moo tax yooyu yëpp eh, luñ ci mën a àtte wala luñ ci mën a teg nit ki rek lislaam da ko waajal ba nga xam ne dafa war a am ñoo xam ne ñoo koy saytu càmbar ko bu baax a baax ba nga xam ne loraange du ci juddu. bu dee fii ci suñu loi ñun Sénégal man nga ne boo demee ci yoon suñu code pénal article trois cent dix neuf alinéa trois mel na ni moom moo ci wax moom nag tuddul mbirum góor jigéen tuddul mbirum LGBT. tudd mbirum homosexuel waaye dafa waxrek rek acte contre nature acte nag mooy fi'lun ghayru laiq aw ghayru tabi'i ma shakhsin min nafsil jins mooy acte contre nature maanaam bon loolu nag man nga ni góor jigéen dugg na ci waaye nag ni nga ko war a leerale dëgg dëgg dëgg ak daan yi ni mu war a méttee dëgg dëgg ak ni ko war a ràññalee des na bu baax a baax ndax acte contre nature rek da ngaa boole lépp rek daxiñ ko ci biir a biir te tamit daan yi nga xam ne moom na ci waajal ma nga tàmbalee ci at ba juróomi at gën gaa bari bu dee alamaan yi mi ngi tàmbalee ci cent mille ba un million cinq cent gën jaa bari ci ki nga xam ne def na ko te am vingt et un ans ñaar fukki at ak benn. kon lu yees vingt et un mel na ni lii kooku du ko dal waaye bu xasee ba am vingt et un ans bu dee ci suñu dustuur ñun Sénégal maanaam suñu loi lii da ci indi kon nag lii lu ñu war a gën a taral la ndax mbirum góor jigéen yaakaar naa euh, dañ ko war a pénaliser ba nga xam ne ñi koy def wala ñi nga xam ne seen xel dem na ci di ko def ngir seenu caay-caay wala sax tubaab yi nga xam ne seenum xel nekk na ci di ko ñëw di ko def di ko def si fii ñu ko koo teggi di dem beneen dëkk waaye xam nga ne lii mel na ni eh, ni mbirum góor jigéen réye ci borom bi subhaanahu wa taala ak ni mu bone ci askan wi ak ni mu mën a yàqe eh, espèce humaine waras na ko gën a mën a diisal bu baax a baax te loolu ñëpp ci war a jàpp li ñuy LGBT arab di ko wax mujtama al miim nga xam ne moo gën a siiw ci ci seeni kuréel ay kuréel yu bari lañ nag nga xam ne ëmb na genre ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex wàll woowu te nga xam ne raaya bi nag drapeau bi nga xam ne Europe ñoom ñoo ko yëkkati ñoom sax ca ay jamono bu yàgg-yàgg mbirum góor jigéen am na fa moo xam ci boo demee ci ancien grec wala ancien romain am na fa mu nekkoon fa mbir mu siiw waaye ginnaaw ba fa diinay masix ñëw nekk comme religion bi nga xam ne moo dominé ci impérator bi romain yi ci jamono bi nga xam ne ki ñu wax euh, impérator euh, Théodosius al awal euh, ci atum trois cent quatre-vingt-dix moom la génn ay loi yoo xam ne képp ku ko fa defati ci a ngóor jigéen dañ lay taal nga xam ne kon mbirum góor jigéen lu société bi yàgg bañ la ci jikko ak ci nekkin waaye tewut am ñat ñoo xam ne xañ na seenu mbon ak seenu caay-caay taxul ñu bàyyi ko ba ci atum nag 1969 ci lañ euh, créé kuréel goo xam ne day xeex seenu àq ak maanaam euh, ñoom seen ak genre di euh, xam ne ñooy xeex seenu ak pour nit ñi jox leen ak wala seen dëkk yooyu ci Europe ci ginnaaw euh, première guerre mondiale ci 1932 Pologne bi mu amee indépendance am ci la njëkk dindi pénalité maanaam taral gi muy taral góor jigéen ñi Pologne moo ko fa njëkk dindi ci Europe. ci annasaatul jinsi al misli ginnaaw bi Union soviétique après bi Staline ñëwee nag 1933 ñëwaatee euh, jiite euh, Union soviétique ci la ko pena euh, maanaam ci la attewaat ay loi yoo xam ne day gën a taral mbirum góor jigéen waaye nag loolu teewut ba 1972 dëkk bu ñuy wax Sowét mooy dëkk bi nga xam ne moo njëkk a maye ay citoyen képp koo xam ne bëgg nga soppi saw sa sa awra def ko boo dee góor bëgg soppi sa awra def ko jigéen boo dee jigéen nga bëgg a soppi sa awra def ko góor Suède mooy dëkk bi nga xam ne moom moo ko njëkk a permettre ci ay citoyen ci mbon googu nga xam ne moom moo ko njëkk a tàmbali moom Suède loolu teewul nag tubaab yi bon yi nga xam ne seen xalaat yu bon yi framention yi nga xam ne daanaka ñoo diriger àdduna bi nga xam ne ñoom wàllu diine ci boppam ak esprit diine dañ koy xeex buñ sañoon àdduna bi loolu ñuy wax ci diine moom dañ ko fi jële bàyyi nit ñi nga xam ne dootuñ am dara lu leen tënk na ci seenam xel rek ñu def ko biñ demee ba l'an 2001 dëkk bi ñuy wax Hollande mooy dëkk bi nga xam ne moo njëkk permettre góor ak góor wala jigéen ak jigéen di sëy mbon gu googu Hollande ci dëkk Europe yi wala ci alam bi sax mën nga ne ci monde bi moo njëkk a moo njëkk moo ko njëkk a législa législative ci ay loi am ginnaaw bi nag la fukki dëkk ci Europe ñoom tamit topp ko ci mbon googu bokk na ci Belgique ak Espagne ak Norvège Suède ba ci Portugal ba ci France Angleterre ak Allemagne ñoom it permettre góor ak góor di sëy loolu nag taxut ñu bàyyi ko yamale ko ci ñoom dañoo bëgg àddina bépp légaliser ko mbon googu ba tax na sax booy xool seen góor gouvernement bi maanaam ñi nga xam ne góor ay góor jigéen la ñuy dund wala LGBT poste yi gën a am solo léegi moom lañ leen di jox ak mu assasaat yinga xam ne daanaka ñoo yilif adduna bi boo demee poste ya gën am solo dañuy tànn ay góor jigéen di leen ko fal loolu lépp ngir ñu bëgg ko imposer adduna bi rawatina dëkk yi nga xam ne sax dañoo néew doole lu mel ne Afrique ak tiers monde bi loolu nag muy loo xam ne xeex bu rëy a rëy la nar a doon ndax booy xool ñoom léegi seen ndimbal yi nga xam ne dañ koy dimbali dañ koy dimbali dëkk yi nga xam ne ñoo néew doole léegi dañ ciy boole sax di ko sart yow mi nga xam ne danga leen di xeewale yow mi nga xam ne danga def ay ay yoo xam ne day taral a góor jigéen ngir nga dindi ko wala ngir nga wàññi ko loolu nag muy loo xam ne mooy xeex bu gën a rëy ci xeexu jamono bi léegi ñi nga xam ne dañoo am seen jikko ak seen diine ak seen culture ba ku dund tubaab yi fas yéene dind loola ba mu wecc bëgg ñoom lañuy dund seen bàyyi ma googu ñu dund yow nga fekk ci leen ci loolu nag li tax nga mën ci mucc benn nga fexe am doole ak it waajal say ndaw ci bépp boor bépp boor waajal leen ci am-am waajal leen ci xam-xam ndax ginnaaw dëkk alam àdduna bi léegi benn dëkk la nga xam ni da ngay jóge fii di dem ci dëkk Europe yi di jaxasoo ñoom loolu lépp laaj na xeex ci fànn gu muy ci eh, gëm-gëm muy ci xam-xam muy ci man-man loolu nag eh, luñ war a taxaw la te ñëpp ci war a jàpp kon mbokk mi loolu laa la indiloon ci mbirum góor jigéen ci li li jàpp ne ci ñun nga xamee ko noonu muy mbon goo xam ne mbon gu yàgg yàgg la te borom bi subhaanahu wa taala nam ka bañe woon démb tey la raw te nam manoon a nam mane nam manoon a alaka alka alkaane ña xam ne ak ñoo ko defoon ci jamono boobu tey jii la ko gën a man tey tamit képp koo xam ne yaa ngi ci xamal ne mbugalam suñ borom yaa ngi ci biir mbugalam suñ borom daa yëg segut rek kon duñ def lu ñaan borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo am kattan mu kattanal ñu mi nga xam ne moo man lépp mu dimbali ñu ba mbirum góor jigéen yàlla musal ñu ci musal ci suñu njaboot musal ci suñ dëkk yi nga xam ne moom lañ am te mën nga ne fépp foo xam ne am na fa rek commencé fa tasaaroo mel na ne àdduna juy bëgg a tukki